Béranger Pape Ngom maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nga nekk président bu association des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration euh, du Sénégal nekk tamit membre euh, ci conseil national du tourisme tey ji 27 euh, septembre ñuy màggal bés bu ñu jagleel wàllum tourisme ci àdduna bi naka nga ko daal di gisee. waaw ma lu rafet la ndax tourisme quand dafa nekk secteur bu transversal secteur boo xam ne secteur de rentrée la à fort dynamique secteur boo xam ne day dugal koppar bu bëri di deuxième industrie ci ci sunu économie Sénégal muy contribuer à hauteur de huit pour cent ci PIB bi donc lu am njëriñ la lu am importance la donc nag comme ñi ciy liggéey en général ñoom ñooy servir nit ñi ñuy lekk je pense que ce jour la képp ku ciy liggéey war nga ut tuuti koppar dem ci restaurant toog pour se faire même plaisir consommer bés bi màggal ko parce que quand même ñun ñoo ko moom ñun ñu ciy liggéey tout cas sunu bés la war a gën a doon. Mm-hmm. mais mais Sénégal naka ngeen koy màggale euh, euh, national sur le plan national euh, naka la ñuy màggale bés bu ñu jagleel wàllum tourisme. ah naturel ni ñu koy màggalee comme ni ñu ko doon màggalee bu njëkk la xam nga Sénégal aussi dañu jël secteur bi relégué ko au second plan. joxuñu ko àq bi ci war du ma wax loolu ndax euh, du ma wax loolu nag ci ñëpp ci ñi ko parce que ñi ko xam sax bariwul mais boo xoolee boo xoolee njiitu réew mi bi muy ñëw fii ci plan Sénégal émergent dafa defoon secteur bi priorité xamoon njariñ bi mu am ba dugaloon ko sax bokk mu bokkoon ci ay priorité am majeure xam na njariñ bi secteur bi mën a àndil réew mi donc je pense que quand même secteur la boo xam ne wax dëgg yàlla war nañ ko bàyyi xel secteur bu am njëriñ la ci économie dëkk tey jii ci yaatal Pape Béranger boo ñu doon wax jafe-jafe yi nga xamante ni moo am ci biir secteur du tourisme yëpp yan la xam nga secteur balaa am jafe-jafe ña fay liggéey ñoo ña fay liggéey ñoo ñoom ñoom ñoo war a njëkk a nekk à l'aise bala ñoo wax ci secteur bi parce que secteur ay nit ñoo koy porter pour mu pour mu porter ses fruits nit ñu koy porter nag mënuñu di liggéey boobu ba léegi di liggéey ci benn convention boo xam ne la convention collective qui régit l'industrie touristique et des loisirs mooy convention bi gën a ñàkk njëriñ parce que convention bi elle date de Mathusalem elle ne ni conforme ni naam phase avec le coût de la vie tey tey dund bi cher na prix yëpp yokku na mais ka doon fayeeku ñaar fukki junni moom lay fayeeku ba tey pourquoi duñ ko adopté tey au contexte sénégale xam nañ ne tey contexte bi lépp cher na mais nañu yéegal convention collective bi mais ka doon ñaar fukki junni tey ñu yokku location yi yokkuñ dund bi gis nga panier ménagère bi tey ni mu chéré ceeb bi diwlin bi ah les ah les de première nécessité yi nga xamante ne moo soxal doomi adama pour mu war a dund lépp yokku ba pare convention bi des boobu ba léegi kaddu kenn kenn defu ci dara loolu kañ moo la ñu war a njëkk a wax avant ñuy wax secteur bi ka cay liggéey bu amul bien-être secteur bi du mën a dox maintenant ci wàllu secteur bi depuis Covid bi. waaw pour pour rebondir à ça ci wàllu secteur bi en tant que secteur Euh, du tourisme depuis Covid bi ñëpp xam nañ ne tey dugg beeg génn ki wàññeeku na parce que avant amoon nañ quarante huit pour cent sax ay entrée touristique yu fi doon ñëw muy les muy les occidentaux mais tey gis nañ ne restaurant yu bari boo fa demee ay nit ñu ñuul rek nga ciy fekk donc loolu kañ xam nañ ne wax dëgg yàlla dem beeg dikk bi bu mu wàññ bu wàññeekoo rek day wàññeeku ci secteur bi kooku dañ koy gis te bi bi bi bi bi bi bi Covid bi ñëwee. boo xoolee amoon nañ 33 pour cent yoo xam ne de licenciement dans les hôtels donc wàññi woon na ñiy liggéey ci 33 pour cent ci liggéey ñiy liggéey ci ab secteur saa waay boo ko wàññee xam nga ne secteur boobu dee na sooxul sax dafa dafa nermelu dafa yàqu complètement kooku mais léegi nag wax dëgg yàlla bi Covid bi jeexee boobu ba léegi ñu ngi commencé ñëwaat ndànk-ndànk les activités commencent à reprendre mais mais doucement. léegi yan yan xeetu euh, tourisme moo am Pape Ngom Béranger ah bari na waaw comme yan exa exactement xam nga ya yaa le tourisme déjà le tourisme local y a le tourisme balnéaire y a le tourisme culturel y le tourisme genre ah y a le tourisme d'affaires le tourisme de congrès ah y a le tourisme sportif voilà loolu yëpp bari na xeetu tourisme am na ñoo xam ne bu fi ñëwee le tourisme balnéaire ñoo xam ne dem géej moom moo leen di intéressé nekk ci planche à voile yi voilà ñoo leen intéressé le tourisme culturel am na ñoo xam ne sunu culture moo leen attiré ñu ñëw fi mbaru làmb mbëre beek yooyu yëpp fecc bi gumbe yi ñuy def ci plage yi hmm. ah ndëpp lébu yi moo leen fi kii yàlla yàlla tourisme d'affaires ñoo xam ne ay tourisme de congrès ñoo xam ne ay affaires moo leen fi indi ñoo xam ne aussi ay société ñoo leen yónni pour ñëw ci ay congrès yàlla tourisme sportif yoo xam ne aussi sport moo leen fi indi seetaan si diw ak diw ñooy football wala diw ak diw ñooy ñoom ñooy bëri loolu yëpp am na y a le tourisme médical également qui est quand même qui doit être revalorisé parce que tout la sous-région bu ñuy faju si dañuy ñëw fii donc loolu c'est le tourisme voilà kooku c'est le voilà c'est tourisme médical boo gisee Maroc tourisme mu gën a développé c'est le tourisme médical maa ngi faju ji Maroc maa ngi faju ji bitim réew mais ci ay hôtel ngay dëkk di faju kooku dañ ko war a gën a développé suñu dëkk ça c'est important yooyu yëpp xeetu tourisme la. mais ñu gis ni euh, Béranger souvent lu ñuy dégg mooy euh, tourisme sexuel maanaam tubaab yi bari su ñu ñëwee fii ci Sénégal euh, li leen fi indi wax nga ko sànq mooy tourisme du genre loolu déjà yow loo si xalaat. waaw y a beaucoup wax naa ko sànq ci tubaab nee naa leen y a beaucoup de français non excusez-moi du terme y a beaucoup d'occidentaux qui viennent au Sénégal pour combler leur misère sexuelle. da ngay toog sa dëkk at ba at doo xam ni jigéen gi sax parce que màgget nga kenn bëggu la yaa ngi daw wala ngay drainer ay maladie ñëpp xam ko détecté ko ci nga ne bàyyil ma dem Sénégal dëkk ba pauvre na xale ya boo loo koo ci jox xaalis mu jaay ngoram ñu ñëw fii ànd ak ñoom di def lu leen neex mais loolu nag bareetul carrément fii ànd a à Dakar mais mu ngi am ci petite côte bi ba léegi ci am aussi ci boîte de nuit mais du mën a jeex na fi parce que xam nga quand même la prostitution mooy première. Euh, métier dans le monde. Mhm. ko moom jógewu fi ba léegi waaye boo xoolee xaw na wàññeeku tuuti ci restaurant yi xam nga. ay les prostituées moom. Mhm. ay nomades lañu rek dañuy xam ne fii bareetul ay tubaab ñu ne tey tubaab ya bari nañ boo jël ñoom ñëpp ñu jël seen ay seen ay bagages dem màngaani lu yee fa ay néeg di dem ca hôtel ya foofu loolu rek la ñuy def buñ ne fii tey bariwul tubaab ñu jëlaat seen ay saak demaat foofu lu yee ji loolu rek lañ dañuy màngaani rek voilà loolu daal moom gis nañ ko. est-ce que est-ce que pour yow Béranger mën nañu xeex tourisme sexuel. par exemple fii ci Sénégal waaw mais xam nga le tourisme sexuel c'est très difficile. Mhm. xam nga lu tax. Mhm. mooy yi nga koy xeexee nga du am ndax nit ki du ñëw toog ci restaurant sol lu gàttam di consommer nga ñëw ne ko caga nga ñëwal kaay. Mhm. excusez-moi du terme ñëwal ma jàppale yóbbu la police mënoo ko. <laughs> ah waaw kon léegi naka lañ ko waaw. Mhm. non dañ mais dem nañ sax ba état tolor toléré ko di la laaj ay carte ay carte ah, ay carte ay carnet de santé ngay defi vaccin ñu lay jox ay préservatif ngay dugal ci sab sac di dem. Mhm. pour sa wér gu yaram kon kañ kon kañ libéraliser dañ ko libéraliser nangu ko <laughs> am déet. <laughs> dëgg la ah oui bu fekkee ne loolu am na bu ñu la jàppee nga wane sa carnet de santé. ñu mm-hmm. xam ne kii kat am na am na am na am na autorisation cagatu kooku di ko jàpp. déet doo ko jàpp. Ah, kooku mënoo koo xeex nag. dina dina dina xeex li ñu mën a xeex daal mooy ñëw guddi laaj la say pièce dantité amoo ko ñu ramasse la yóbbu la nga dem wala beaucoup d'étrangers ñëw fii di ko fi def gaa yi jàpp la. léegi waaye pour nga xeex loolu dina jafeñ trop. léegi Béranger pour yow lan moo tax destination euh, Sénégal attireetul touriste yi comme ni mu daan attiré touriste yi. mais dafa cher Sénégal bokk na ci dëkk yi gën a cher ci monde bi. ay billet d'avion ñu naan la ay un million et quelque passé to Maroc gii boo fa demee avec six cent mille francs nga def benn séjour pas di nga fa passé tout un week-end avec une pension avec une pension complète lekk añ lekk naan lépp tout complet tout ah mm-hmm. ah tout complet ko kañ boo ko defee ah ah saa waay loolu lañ naan ci sunu jargon la all inclusive mhm. mooy maanaam fay nga lépp Europe nga ñëw indi ko fii tey toog nga xamante ne doo fayati dara da ngay ñëw rek am bi la nga dem ci hôtel bi fay yëpp benn benn sa benn six cent mille sept cent mille mën nga si fay lépp looy def si séjour bi Maroc waaw waaw c'est ce qu'on appelle le inclusive mhm. da toog da toog loolu tour opérateur yi dañ koy def. Mhm. moo tax dama ne leen dama ne l' agence nationale de la promotion touristique dañu war a ubbiwaat sunu bureau de promotion touristique vers les marchés émetteurs. Mhm. tu comprends nga xam ne tour opérateur yi dinañ nekk sur place mën a jaay destination bi te du ñu sonn parce que tey tubaab yu bëri bu fiy ñëw lu ñuy def dañuy ñëw toog tey ci tour opérateur yi ñu def benn comme li ma la doon wax sànq. Mhm. ce qu'on appelle les chèques vacances dañuy signer ay convention avec des hôtels boo ñëwee dañ naan société bi y a cent personne cent personnes yëpp dañ naan naan indil ku ci nekk sept cent mille boo demee ca hôtel ba séjourné fa ba mu neex la nga ñibbi passé de belles vacances te doo fay lu cher. Mm-hmm. mais naka la nit di liggéeyee loo xamante ne sa àdduna la nga jël sa alal yëpp def ko fa naan da ngay dem vacances mais kenn du ko def di nga jël cinq million naan maa ngi dem rek pour ma faire plaisir. ah dans un pays. loolu doo ko def mais nag bu dee un million c'est raisonnable donc destination bi dafa cher te loolu politique bu ñu war a yaatal la état daf ci war a bokk ak patronat yi ñu toog état ne leen politique di état ne leen li ngeen di. Mhm. parce que état aussi mënul nit yor hôtelam di répondre aux exigences de l' nga ñëw di naan ko. prix yi ngay adopté par force dans ces cas là borom hôtel bi danaan la mais yow tu te prends pour qui xam nga état moo war a joxe son rôle de participation dans le secteur mu impôts yi ak taxe sur le revenu salarial yi maa ko moom dama koy wàññi ba mu tuutee ba nga xam ne c'est insignifiant comme ça ngeen mën a wàññi prix hôtel yi sénégalais bu ne man faa dem képp ku xam ne Sénégal destination bi wàññeeku na day daw ñëw parce que tey am nañ géej am nañ naaj ah, jàmm am na fi mooy sunu mooy l'hospitalité mais lan moo des pour pour pour dëkk bi dox pour tourisme bi dox cherté de la vie rek moo des te loolu politique la boo xamante c'est une politique dans un esprit consensuel ñu toog ñun ñëpp waxtaan ci définir le xam nga les rôle xam nga ku ci nekk ñu ne la lii mooy sa rôle patronat jouer rôle bi état jouer rôle bi acteur bi liggéey acteur lambda bi liggéey jouer rôle bi destination bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëw mais prix yu cher yoo xamante ne kenn mënu laa wax la flambée des prix léegi sax jël nañu ali bi léegi buñ la nuyootee sax boo nee hmm. nuyu bi de métti na ñu ne la non la guerre en Ukraine mel ne benn dëkk rek. Hmm. rek rek rek Ukraine rek moo mën a tax àddina bi yëpp cher mais ça c'est extraordinaire. mu nekk lu doy waar ça ah. ma ne mu nekk lu doy situation bu doy wala voilà c'est une situation vraiment très très difficile à vivre mais malheureusement nag euh, on fait avec. léegi boo dematee sax on n'est pas rationnel. Mm-hmm. sur sur nos prix chacun adapte les prix qu'il veut l'État ne fait rien. Mm-hmm. mais ça ça ça c'est grave. kooku sax kooku moom wax dëgg yàlla waxutuma la ak sax leneen mais mën naa tax sax ak sax ak ak nguur wàcc kooku mën naa wàcc am nguur sax. Euh, les prix sont chers les prix le Sénégal est cher wax dëgg yàlla dañoo cher. donc loolu. Mm. mën naa indi ay blocage yu bari pour secteur bi meññ ni mu war a meññ. ni mu meññ waaye bu dee potentiel rek am nañ tout ce qu'il faut. Euh, place tourisme ci koom-koomu réew mi euh, am na solo wala amul solo. am na solo. Mm-hmm. am na solo le tourisme kañ bu ñu la nee mooy deuxième industrie à part la pêche. Mm-hmm. nga xam ne tourisme am na. ah li muy li muy dugal ci emploi ak revenu mais kenn xamul fu mu toll ah loo xamante ne mu ngi dugal plus de cinq cent milliards par an ah. rien que waaw rien que les taxes touristiques ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak tout ce qui va dedans. donc xamal ne c'est un secteur qui est quand même à fort qui est qui est un secteur vraiment génératrice de revenus et d'emplois. Euh, tey jii dernière question bu ma lay laaj Béranger est-ce que yow d'accord nga si ñenn ñiy wax euh, réciprocité visa maanaam bépp sénégalais buy dem bitim réew nañ ko fi essayé nañ bi tàyyi jëmaluñu kanam mhm. ma ni euh, touriste buy jóge fii les occidentaux qui viennent là tubaab yi fi ñëw xam nañ ne bu ñëwee tey ci hôtel lañ dëkk quatre-vingts pour cent des africains qui vont dans les pays européens ce qu'ils font ils ils des cousins ils on des parents ils ont des frères ils ont des sœurs bu ñu demee sa kër yooyu la ñuy def mais bu dee touriste au moins dina dem dans un hôtel dëkk fa di consommer mooy loolu mais tey bu ñu fi defee réciprocité des visas ñun loolu jiguñu te duñ ci am ndam man daal bu ma sañoon ñu bàyyi noonu ñu bañ a def la réciprocité des visas mais par ailleurs. Mhm. ñun ñi nga xam ne aussi ay sénégalais lañ ñu ngi wuti visa dans les ambassades. bu ku ci liggéey ñu faciliter la nga am visa dem. exactement xam nga loolu aussi mooy yoon mais dem dans les ambassades ñu lekk sa xaalis ba pare lekk ko ba mu set frais visa ya nga war a def yëpp kenn fayu la ko loolu ça pose un problème. loolu aussi dañu dañu war a fexe ne bu ñu la mayul visa sax ñu delloo la sa xaalis. ñu delloo la sa xaalis moom la ñu bëri di wax de. mais ñu ngi jël sa xaalis may ñu la visa. kott bu ñagas nga xëy passé sa tout ton temps là-bas dugg fa yombul ñu naan la ngay karang-karang yi pour dem foofu dafay mel na sax yow yow yow yow yaa ngi seeti yàlla mais c'est pas normal kooku nag c'est la politique de l'État kooku c'est à l'État de mettre en place une politique qui lui permet vraiment de ne plus avoir certains comportements comme ça euh, au moins ñu ñu au moins la dignité des Sénégalais ah ñu mën ñu mën ko mettre en avant mais mënoo ñëw suñu dëkk ñu nekk fi étranger nekk ailleurs étranger suñu dëkk amuñu fi sax jàmm bii daal boo laaj ñu am na ñoo xam ne dañ lay xool nee xoolee rek tu as tous les documents ñu ñu ne duñ la jox visa mais ñu ko teg teguñu ko fenn. voilà nag état moo ci war a jóg. Béranger Pape Ngom Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. Rewmi FM jërë ngeen jëf waay. may waaw may fàttali yow yaay njiit association des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration du Sénégal membre tamit bu conseil national du tourisme